l'instant euh, que la coalition euh, gëm sa bop mom rejeté nañu ko ci yu njëkk ya ndax bokku na ci coalition yi nga xamantene ñom lañu njëkk rejeté direction générale des élections ngeen dem ci conseil constitutionnel bi nga xamantene ko fofu amul recours est-ce que yaakar ngeen li lii ngeen jébbalaat dina am recevabilité. ah am nañ ci yaakar parce que ñun dañu wara saisir le conseil constitutionnel jusqu'à présent ñu ngi sûr que bi parce que rabat d'arrêt bi la ñuy di xaar donc ça veut dire que ni jusqu'à présent ñun japp nañ ni dinañ bok tey ni nii si élection yi donc li nga xamante ni conseil constitutionnel saisir nañ ko parce que mon mot wara prononcer aussi lolu bu doon dafa amone benen juridiction bu mën prononcer aussi lolu si lañuy dem saisir ji mais ginnaaw ba xeyna li conseil constitutionnel def motax tay nga am sa sañ-sañu laaj mais ñun nañ ni euh, conseil constitutionnel wax li nga droit. Mhm. dire le droit je pense que ni mu maître mais également euh, euh, coalition Benno Bokk maître dañu déposer un également recours parce que nous rejeter sen liste ci suppléants yi lan nga la pertinence aujourd'hui ci conseil constitutionnel. merci Fatou. xam nga ñun buñ sañoon ay jongante yi ñëpp bokk ci jongante bi. mais loo gis nag dafa am nuñ koy organiser dafa am ay règles. football sax buñ koy def dafa am arbitre am ay règles maanaam kenn du footballé loxo boo jàppee bal bi sa loxo arbitre dafay siffler na foot la boo dee nit ki jël bal bi dañ naan na foot la. Hmm. élection aussi noonu la mel. dañu naan da ngeen di jongante mais dafa am règle yoo xam ne sart yoo xam ne constitution bi moo ko tëral code électoral moo ko tëral yenn taay ministre bi jël ay arrêté il faut ngeen jaar foofu pour que yëf yi leer je crois que ñëpp buñ tënku ci li nga xam ne moom la yoon wax coow lu bëri alors ñun dégg naa sama xarit bu mu nee dañu saisir euh, encore conseil rabat d'arrêt amul conseil constitutionnel ah cour suprême la am ensuite nah, gis naa bu ñuy déposer recours yi na ngeen déposer waat recours pour ne da ngeen di ŋàññ liste benn bokk yaakaar parce que dañu ëppale benn pare yéen defoon ngeen ko ba pare conseil conseil tontu leen conseil conseil nee na seen requête bi c' est irrecevable parce que fi ngeen ko jaare baaxut da ngeen ko jaare comme da ngeen doon contester la constitutionnalité des décisions de la commission de réception de l'OL amut euh, da ngeen teel a jóg yoon mayu leen ngeen delluwaat conseil constitutionnel pour les mêmes moyens et le même objet. mais mais fait qu'il y a un autre procédé parce que peut-être que les li nga le font l'État peut-être l'objet euh, amul peut-être jafe fait, mais fi ko mais s'ils choisissent euh, de passer par un autre moyen est-ce qu'il faut également conseil constitutionnel war na ko c'est-à-dire. Le euh, conseil constitutionnel benn yoon rek soit euh, commission bi rejeter ce liste ne c'est déclaré irrecevable nous may la délai pour nga saisir conseil constitutionnel conseil constitutionnel saisir euh, statut qui ci délai yi ñoom def nañ ko ba muñ encore ñu publier liste pour les mêmes moyens les mêmes faits et le même objet ñu delluwaat conseil constitutionnel bon loolu de toute façon conseil constitutionnel dinañ ci àddu mhm. jarul ma ci ma ci appesantir mais ñun li nga xam ne def nañ ko mooy ñetti recours lañ def mhm. benn bi c'est sur euh, la liste proportionnelle de Yewwi dañ ko déclarer irrecevable euh, parce que yi ci liste proportionnelle bi dañu ci dugal benn euh, candidate bu jigéen mhm. bu tudd Fama Mbeng boo xamoon ne amul at yi nga xam ne moom nga war a at am pour mu nekk député maanaam amul ñaar fukki at ak juróom bi ko commission bi gisee ñuy wax aussi de c'est pas la DGE mooy mooy mooy mooy joxe décision c'est une commission de réception qui est logée à la DGE mais c'est pas la DGE donc commission boobu du ay fonctionnaire rek a fa nekk am na ay personnalité indépendante am na ay informaticien ay technicien am na ñi nga xam ne li may wax moi toujours DG def pas le ministre c'est une commission qui a été mise sur place par le ministre. sous l'autorité du ministère. oui c'est le ministre qui a mis sur place effectivement vous savez <laughs> euh, parrainage dafa un dispositif. On va ramener élection beaucoup ak élection présidentielle. élection présidentielle conseil constitutionnel a def dispositif de contrôle des parrainages élection législative ministre de l'Intérieur moy def dispositif de contrôle et parrainage loolu aussi il faut que nit ñi xam ko alors commission bobu nak moy statut ci parrainage yi statut ci ce que l'on appelle la recevabilité juridique euh, des dossiers ñaari phase day doon alors euh, li ma doon wax mooy yeewi sen liste proportionnelle dañ ci duggal jigen bo xamne ne at commission bobu comme niko ko yoon d'aller leen notifier d'aller leen jigen bi ngeen duggal ci sen liste proportionnelle amul at

la liste des suppléants bu Benno euh, bu bu oui. pourquoi parce que mode de suppléance du Ben, c'est-à-dire boo les euh, liste proportionnelle bu ñu def suppléance bi vous ñu koy def qui nga xamné ne ki nga ne ne euh, ci ci liste bi ki ci top bu fekké ne mënatul ne député ki ci top la jël day toujours c'est une suppléance verticale hmm. mais scrutin euh, majoritaire c'est une suppléance horizontale Madame, xam nga raw le liste supplé liste majoritaire du Kourao, c'est depuis ce nombre de députés day dem ñëpp titulaire yëppay dem mais suppléant ce qu'on ko fait nag bu fekkee ne titulaire yi à na koo xam ne de nekk député ci qu'ils ñuy commencer commencé ci liste suppléant Moi d'ailleurs, tax ñu conséquence bi bi nga xam moy irrecevabilité liste proportionnelle bu yeew oui, mooy déclarer irrecevable la liste des suppléants de Donc, c'est mon premier recours bi deuxième recours bi <coughs> toujours je crois que ça concerne l'irrecevabilité de la liste des suppléants de Benno Bokk Benno c'est une dañ liste suppléant euh, c'est irrecevable or li tax ñu wax nous mooy ñunu 11e ñaari 11e et 12e place hmm. ci une liste dañ tegle ñaari 43e 44e place nous devons être ñaari alors mais bo les limbi ce que l'on appelle par exemple le caractère intégral de la parité nous respectons sur 50 personnes 25 sont 25 mais nous ko teglantee lañ parce que la loi est très claire maître oui pas seulement le nombre soit quand même divisé qui dit 25 waaw mais xam parité nous am ñaari condition première condition bi mooy lu ñuy wax lim bi lim bi mooy le caractère intégral maanaam bu fekkee ne fukk nit la juróomi jigéen lay doon juróomi euh, juróomi góor lay doon sauf bu amee ay impair euh, tout ça ça ñu may waxal xam nañ ko mais ensuite niñ koy alterner da ngay def góor jigéen wala nga def jigéen góor ñun foofu lañ defee erreur dañu def ñaari góor fii fee ñu def fa ñaari jigéen mais nous nous considérons que loolu bu amee commission bi dafa ñu ko war a notifier comme ni mu notifié woon Yewwi ne ko am na koo dugal ci seen liste mais amul at yu ko may mu nekk candidat commission bi dafa ñu waroon notifier ne am na kat seen liste yi ñaari góor yu ngeen tegale ak ñaari jigéen lu ngeen tax su ko defee ñun ñu ñëw ne dañ leen di essayer remplacer. Mm-hmm. mais li ñuy li nga xam ne moom la ñuy jooytu devant le conseil constitutionnel. Mm-hmm. mooy la fait que commission mu dafa rôle am notifié wuñ loolu. loolu ji loolu jooytu dañ koy jooytu foofu. Mm-hmm. beneen bi nag mooy liste Yewwi bu Dakar. listu yeewu dakaar ñëpp xam nañ ne respecté wul parité bi ñoom ñoo ko waxal seen bopp mënuñ ko weddi euh, au lieu ñu def góor jigéen jigéen góor list majoritaire bu yeew bu dakaar dañu fa def juróomi góor ak ñaari jigéen loolu kenn mënu ko weddi euh, ñu daal leen ko wax li ma doon wax léegi ñu notifié leen ne leen yéen respecté wu leen parité parce que da ngeen def juróomi góor def ñaari jigéen léegi ñoom ñu ne am na ñaari góor yoo xam ne dafa démis dañ démis ci ñoom dañ ko bëgg remplacer. Hmm. bi ñu commissaire amul remplacement ñu dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne leen mun ngeen remplacer foofu la conseil bi ngeen substituer mun ngeen retirer substituer loolee conseil constitutionnel wax ñu ñëw indiwaat ñaari jigéen ak góor ñu nag dañu ne parce que conseil constitutionnel décision boobu mu joxe dafa ci am ñaari affaire dañu sukkandiwu ci article bo xam dañ ko abrogé man pour man en tant qu'avocat yoon mhm. mënul sukkandiku ci article boo xam ne amatul dañ ko abrogé pour rendre sa décision mhm. ñu ngi ñu ngi sur l'article L 173 ca L 173 ñoom dañ fàtte ne dañ ko abrégé par remplacer ko par l'article bu ñuy wax LO 185 sur la déclaration de candidature chapitre 5 du code électoral mhm. kooku dafa ne candidat yi nga xam ne mën nañ leen remplacer ñaari façon rek la candidat bu gaañu bu ñu defoon candidat balaa njongante yi kii nga gaañu wala candidat boo xam ne tu es inéligible maanaam munoo bokk ci jongante yi conseil constitutionnel nag moom d'accord na léegi ne demi ku démissionné mun nañ la remplacer waaw d'accord même bu ñu d'accord ci loolu mais bu ñu lay remplacer dañ lay remplacer ak bu fekkee ne góor moo démissionné góor lañ koy remplacer bu fekkee ne jigéen moo démissionné jigéen lañ ko loolu nag d'accorduñ ci moo tax ñu dem conseil c'est clair maître je pense que loolu également comme des reproches à la coalition Benno